allah wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa baadu ayuha almustamiin alkiram walmushahidin alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi safoo di déglu seen chaîne bii di Sen TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di leen bége tabaarakallahu tey nag nu ci les bienfaits du moton euh, de la tabaski maanaam secret yi nga xam ni moo nekk ci xarum tabaski xam naa nag dañu koy def ay parti parti bu ko defee ngeen di gën a comprendre maanaam ay ajza lañ koy def ay parti incha allahu taala maanaam tey incha allah nu ngi fas yéene waxtaane wextan bi njariñ yi mu am incha allah nga gis ni xarum tabaski Euh, suñ borom daf ci def ay secret ci biir tabaarakallahu ndax xarum tabaski lu sacré la lu dem ba wuutu nit suñ borom bàyyi fi gilleem bàyyi fi euh, nag bàyyi fi bëy bàyyi fi fas bàyyi fi gaynde waaye mu ni lii wuutu nit ka nu bëggoon a euh, tabaarakallahu rendi mooy xarum tabaski xar kon ngay gis ni xar moomu nag dafa am ay secret ndax xar moo wuutu sunu maam Ismaïl keroog bi nga xamee ni nettali naa leen fi histoire bi tabaarakallah bu ngeen demee ci euh, sunu euh, sunu émission yu précédent yi di ngeen euh, gis ni histoire bi nettali leen ko intégralement du début à la fin bu ko defee maa ngi ñaan ñi suivre loolu nu dem suivre ko nu gën a xam histoire bi incha allah réellement tey nag dañuy dikk ak yéen ci secret yi lan moo tax. xarum tabaski ñëw wuutu maam Ismaayil ndax xar xarum tabaski mii nuy rey tabaarakallahu bul jàpp ni rek ci yàpp beeg euh, yàpp wi nga ciy lekk xëlwa ko wala nga mariner ko wala nga def leneen ak leneen foofu rek la yem déedéet suñ borom daf caa am ay secret yoo xam ni daf ko ci def te secret yooyu xarum tabaski at ma at nga koy am rek at ba at la secret yooyu mën a nekk kon yow mi may déglu déglu ma attentivement nga profitoo tabarakallahu secret yi bu mu la raw bu tabaski jotee ngal la waaye looy mënti def nga wutal temps yii ma lay bëgg a wax nga jéem koo def insha allahu taala waaw ah, ndax béjjénu xar ba am na secret yu ci nekk am na sax ñu ciy nopp am na ci ñu ciy dëddale am na ci ñoo xam ni ci la ñuy yëkkatiku maanaam ci wàllu tijjeeku ci wàllu wërsëg ba tey am na ci ñu ciy liggéey yu mel noonu tabarakallah am na ay kayfiyaat ndeysaan am na góor gu baax gu ci bind fii ci senegal la ne tabaarakallahu yor naa téere bi euh, tur wi moo may rëcc waaye tabaarakallahu euh, bind na ci sax mag ñu bari bind nañ bàyyi fi nga gis ni der bi itam am na ñu koy jëfandikoo am na du ci uude bi rek moo ko war a jëfandikoo wala nu pare ci der bi jox ko tëggkat yi nu dem ndënd ko foor ko defal ci ndëndu der bi am na leneen au delà euh, ci wàllum julleeg yooyu déndu ko julli ci jaamu ci yàlla wax na ni sax deru xar ku ciy julli xarum tabaski képp ku ci taxaw maanaam sa xarum tabaski nga pare dénd xar mi ba mu pare tabaarakallaahu dénd der bi moom laa bëgg a moom laa bëgg wax dénd der bi awale ko ni nga ko war a awalee wax nañ ni der boobu nga xam ni moom nga tabaskee boo ko déndee ba pare loo ci julli suñ boroom nangu ko loo ci jaamu yàlla suñ borom nangu ko loo ci loo ci ñaan sunu borom nangu ko mooy waral léeg-léeg boo seetloo ci yenn ci jumaa yi tabaarakallahu ca minbar ba fa imaam di taxaw di julli dana am deru xar bu nu fa bu nu fa roof imaam di ci taxaw amaana nu bàyyi ko noonu wala sax nu jël euh, si jaada lal ci kawam ala kulli xaal secret bi mooy loolu mooy deru xarum tabaski lu ci waay taxaw boo ci jullee ñaari ràkka nga am soxla bu mënti doon boo ñaanee suñ borom suñ borom dafay nangu loolu muy soxla bi lu waral loolu mooy nangu gi nga xam ni xar mi nangu na ko waaw dafay dellu ci nangu maam Ibrahima ga ba mu géntee nu ni ko rayal sa doom mu nizar nangu loolu nag mu wax ko doomam muy maam Ismaayil ni ko man de dama gént falamma balaa maahu saaya qaala ya bunaya inni ara fi lmanaami anni azbaxuka lu mu wax fanzur maza tare qaala ya abati faal ma tuumaru sa tajiduuni insha allahu min alsaabirin gis nga ismail keroog nangu na mam haajara tamit bin ko ko waxee ni ko ibrahim bi mu ne ko sa doom jii de sama borom daa dama gént sama borom ni ma ma jël sa bakkanu doom te pourtant amoon na beneen soxna ba am ca doom muy maam euh, saarata waaye maam haajara dafa nangu loolu bu ko neexoon mu ni ko demal rey sama doomu wujju waaye nangu gi mu nangu nag looloo waral xarum tabaski tamit ba nu ko jëlee ca aljana jibril indi ko xar ma dafa nangu jotu maam ismail xar moomu nag di xarum tabaski nga xam ni moo jotu sunu maam ismail nangu yooyu daje yëpp moo tax sunu borom ni lu waay def ci der bi rek ma nangu ko ma waral sax uude yi di ci aw ay téere tabaarakallaahu nangu googu mu nangu woon nag moo waral loo ci jaamu yàlla mu nangu kon der bi ëpp naa sànni ngay gis ni su ma waxee ak yow ci secret yii dikk ak yow benn par benn di nga xam ni xarum tabaski deesu ci sànni dara dara dara am na ñoo xam ni dañuy pare sànni ko feesal kanaal yi ah, tabaarakallaahu am na ñoo xam ni ci biir kanaal yi lan koy def loolu nag nu profito dénoncé ko di ñaan képp ku ti sa xar yooyu nga xam ni dafay composer xar mi te soxloo soxla woo ko tabaarakallahu boo ko mënta jëfandikoo gasal kàmb ba mu xóot nga def ko ci moo wër nga koy def foo xam ni lieu public la lu ñëpp di jëfandikoo la muy kanaal yeeg yooyu mooy waral rigole yi di fatt léeg-léeg nawet bi nan nu ci dimbali euh, tabaske bi jot na yooyu nan nu ci dimbali tabaarakallahu ndax l'islam dafa woote ak cet l'islam dafa woote ak civilisation te loolu jël rendi sa xar ba pare jël butit yeeg mbàq yeeg yëpp sànni ci àll bi sànni ci am na ñoom ci digg tali bi lañ koy jal ku romb xet gi di la bëgg a rey yooyu yëpp nag lislaam dëgg-dëgg daf koy tere waaw nu ñaan képp koo xam ni tamit rayeti nga sa xar boo amul espace boo ko def tabaarakallahu gasal kàmb bu mu xóot wala nga euh, tabaar jël sa pollu def ko ci def ci dóomu taal nga xam ne xet gi du la déranger boo paree nga wut Euh, koo xam ni dafa yor sareetu mbalit wala borom camion malit yi nga fay leen nu yóbbul la ko tabaarakallahu moo gën ngay lor nit ñi di lor société bi léegi ba ci xarum tabaski we bi tànk bi noonu we bi am na ay secret yuñ ciy def <laughs> secret nopp gaaw na ci loolu sax nag tànk boobu ngay gis ba ci corde bi dinaa la wax corde bi am na lu bare bari bari lu muy jariñ ba ci paaka bi nii rendee xar mi yooyu yëpp dinaa ci ñëw étape par étape ma may la rek benn ci paaka bi paaka bi dana ni paaka bi nii rendee xarum tabaski buñ ci rendee ba pare nga jël paaka bi raxas ko ba mu set nga bind ci paaka bi moo xam big feutre nga am moo xam daa nga am loo mënti am encre nga am loo mënti am bind ci rek iqra bismi iqra bismi rabbika nga def nga yem foofu nga jox ko xale bi def ko kiis maanaam nga def ko saafara jox ko xale bi mu naan danoo wax ni xale bépp xale boo xam ni xel mi dafa naqari buy faral di naan ndox moomu nga xam ni kiis la ci moom saa yu xëyee mu naan ci moo xam ñetti fan la ciy naan moo xam juróom-ñaari fan daa wax ni xale boobu dana nekk jeunes yi ci àdduna lu mu mokkal ko am yoo xam ni ndeysaan seen xel yi du ñëw lu nu jàng fàtte ko wala lu nu jàng du dugg looloo gën a gaaw ci kiis benn ngoog léegi nag ma dem ak yow ci tey maa ngi bëgg a ñëw ak yow ci wextanu xar wextan bi waaw wextan bi xar boo ko reyee am na benn ndox bu nekk ci biir boo xam ni benn mbuus moo ko enveloppé nga xam ni loolu bu bu tojee mbuus moom bu tojee bu laalee yàpp wi rek yàpp wi dafay dafay naqar yi dafay wex xat loolu lañ tuddee wextan léegi wextan woowu am na ñoo xam ni dañ koy leelli rek sànni <laughs> tey nag dinaa la ci wax ay secret yoo xam ni wextanu xarum tabaski dootoo ko sànni xola wextan wi moo gën a gaaw ci delloo liggéey nit ku lay liggéey dana wax ne ba ci say tànk tànk maanaam am na ñoom dañuy tibb say tànk comme ñuy bëreeg yooyu am na ñoom dañuy boo seetloo ci wàllu làmb ji bu jotee dangay gis ku ñëw ba ci yow rek tibb tànk yi def cim xal liggéey la dana wax ni wextaanu xarum tabaski boo ko jëlee noonu wextaan wi noonu boo feesee sa xar ba yegg ci wextan wi nga lelli wextaan wi laata wextaan wi di laal suuf bu mu laal suuf nag du laal suuf da nga koy jël noonu mu nekkee ci kaw rek noonu nga ko lellee ci xar wi rek nga jël ko toj ko maasale ko say tànk ci suufu pied bi nag ci suufu tànk bi foofu nga koy maasale ci ñaari tànk yépp danoo wax ni kenn du la liggéey ci tànk ba jàpp la kenn du tibb sa tànk ba jàpp la ah loolu secret la kon sànni wextanu xarum tabaski ëpp naa def wextan woowu boo ko jëlee noonu ma la ko expliqué bu mu laal suuf nga toj ko rek toj ko ci say tànk rek maasale ko ci ñaari tànk yépp dana wax ni kenn du la liggéey ba jàpp la waaw kenn mucc nga yow ci liggéeyum tànk <laughs> beneen liggéey kay la wax waaye tibb say tànk di la ci liggéey loolu mucc nga ci waaw bi ci topp mooy wextaan woowu xoola xar tabaski jot na dangay wut ñetti xa xasum xay da nga ciy wut ñetti bant rek ñetti bant ñetti xas ñetti xasum xay nga jël récipient loo xam ni dina la mën a sang loo xam ni di nga ci mën a sangu tuuti rek jaru muy bari liitaru ndox wala liitar ak genn wàll nga jël xasum xay wi def ci biir ndox mi wextaan wi noonu nga jël ci tuuti rek sotti ci biir ndox mi kon boole nga xasum xay ak wextan ak ndox nga baxal ko ba mu ba mu ndugg danga koy baxal nag ba mu ndugg boo paree nga teg ko ba sa loxo ba sa ba sa yaram ñeme ko nga sangoo ko benn yoon boo ko sangoo mboolem liggéey bu nekkoon ci yow jamono ba ngay doog a juddu ba di nga toll liggéey bi yépp ay toj maanaam dangay set wecc ci liggéey comme ni la sa waajur wu jigéen juree woon da ngay set wecc liggéey bu mënti nekkoon ci yow toj na te ku la liggéeyati dootu la dal ku la liggéey mën na dellu ci moom hmm. paalin yaa ngi dégg li may wax ma ni wi rek wextaan wi dangay wut tuuti ci wextaan wi jarul muy bari nga wut ñetti bantu xay ñetti xas xas ngay wut xasum xay ñett xasum xay day jaay ci marché bi deux cent lay jar takk bi nga wut ci ñett rek ñett wut récipient nga def ci ndox ba liitaru ndox wala liitar ak genn wàll boo paree nga def ci biir récipient bi ndox def xasum xay boo paree nga sotti ci tuuti wextaan boo paree nga nduggal ko tàngal ko ba mu xaw a tàng ba mbir mi bàyyi ba xas mi xaw a jàpp couleuru ndox couleuru ndox bi xaw a jàpp xas mi boo paree nga teg ko ba mu xaw a sedd ba sa yaram ñeme ko nga sangoo ko nag boo koy sangoo nag booy sangoo lépp luy toj liggéey ci kaw ngay commencé wàcc ci suuf bu doon lu loo xam ni dafay tijjeeku nag wàllum tijjeeku ci suuf ngay commencé ci tànk yi yéeg ci kaw booy sangu da ngay dugal waaye bii booy sangu da ngay génne maanaam nii ngay def ndox mi nii ah booy raxas da ngay génne doo doo dugal doo def nii déedéet booy bomb nii ngay def nii day génn parce que mooy génne liggéey bi nekk ci yow wàcc raxas commencé ci bopp bi di raxas wàcc waaye booy sangoo nag loo xam ni day toj liggéey itam bëgg nañ ngay raxas bën-bën yi comme say nopp biir nopp bi nga dugal fa tuuti ci saafara bi dégg nga sa bët yi nii nga def nii ah, raxas ci biir def nii bakkan bi nga romb dem lépp loo xam ni kii la rek waaye fexeel nag tabaarakallahu loolu sax du alquran bu doon alqur bu doon nag wax dëgg yàlla saafara bu jugee ci al wàllum alquran dañuy bañ nag mu laal sa awra da ngay wut serviette nga óodoo ko fexe ba du laal sa sa awra waaw saafara kenn du ko sangoo muy laal sa awra da ngay wut serviette bu ndaw wala nga wut tubéy bu ndaw boo xam ne rek dina mën a baare ndox mi tabaarakallahu euh, loolu moo nekkoon secret yi ñuy joxe incha allahu taala bu nu dikkaatee nag danañ gën a danañ dikkaat ci beneen partie di ko def ndànk-ndànk nu ngi jéggalu ñëpp di baalu xàq ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu